Cheikh Mountakha nee na Cheikh Mountakha ñëpp ay ree wér na ñëpp a bég murit yëpp a bég bëgg gi mu bëgg Sëriñ Tuubaa bëgg gi mu bëgg dafa tax daa tax corona corona bàyyi bàyyi ba Sëriñ Mountakha toog ba Sëriñ Mountakha toog mu ñëw wane Sëriñ Tuubaa daal ni ah daal ni ah. jamono daa xat de jamono daa xat de am na bis am na bis bamba rek a julli bamba rek a julli ba julli jafe moom rek a julli ba wax jafe ba wax moom rek a wax léegi nag coow li na de xàmmeetun ka waxoon ak ka jëfoon xaaral man korona ma ñëw ma ñëw noppiloo leen daal dina jox sunu biir bambay julli lépp dellu fam newoon lépp daal di leer nee na sëñ korona moo wane sëñ Tuubaa di wane du Serigne Touba. moo wane ne kenn du Serigne Touba. bisam bi daal di ñëw. nee na bisam bi daal di ñëw. yëpp yër. yëpp yër. ñu ni laay. tey ñu dee de. tey ay millions de personnes. ay millions de benn barab ci benn barab. tey ñu wàllante ba ñu wàllante ba naaw. ñu dajaloo ñu dajaloo. sant Serigne Touba sant Serigne Touba. point corona ne mes. nee nañ fexe xam borom Touba. nee kenn du borom Touba. man corona daa ko sant de. nee na moom corona da koo sant de. lim ni mu xamlee sëñ Touba. nee na ni mu xamlee borom Touba. fii ci Sénégal nee na kenn musu koo gis. ñëw na tëj jàkka yëpp. nee na ñëw na tëj jàkka yëpp. ni Bamba julil ni Bamba julil. yaa julli woon démb ba muy jafe jafe na tey julil jàmm rek xew. te jàmm rek xew nag te jàmm rek xew nag. dañuy waaj a màggal. nee na waaj a màggal. benn journaliste ñëw fa. benn journaliste ñëw fa. ku ñuy wax Ibrahima Kane. ki ñuy wax Ibrahima Kane. mën ni leen mun leen. ginnaaw màggal ginnaaw màggal. dara du xew dara du xew. benn kilifa woo ko benn kilifa woo ko. engagement bi nga jël rëy na ne ko engagement bi nga jël rëy na de. ma ne ko engagement bi day. mu ne ko engagement bi day. jëlu ma ko jëlu ko. Serigne Touba ko jël Serigne Touba ko jël. démb tey doo koy ñëw. kon nag kon nag. nañ xam Serigne Touba rek nañ xam Serigne Touba rek. te góorgóorlu te góorgóorlu. te maandu te maandu. te bañ di tooñ te bañ di tooñ bu kenn jël sa darajay sëriñ di ko xeex ak kenn kenn ku ne bakoog la mu gëm rek ak la mu ne ak la mu ne la sëñ Moussa Ka waxoon la sëñ Moussa Ka waxoon Bamba yore Bamba yore xaqiqatul xaqiqatul munawwara Mawda yore shariatul mutahara nee nañ ko jàpp foofu rek kullu wirdin yuridu murida li xadratillaahi walan yahida moo ko wax de saa un intama li ahmadal jaylaani aw intama li ahmadan tijaani aw li sawahuma li man al aqtaabi is kulluhum xatxan ala sawaabi nee na Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul la ko wax de alaaji Malick te nee na alaaji Malick dëggal na wax ji dëggal na wax ji ndax moo ni aturuqu kulluhum atuluqu aturuqu kulluhum ila rahmaani moo xam muslikatun muslilatun yaa jaali nee na kon wax ja mat na nee na tarixa yëpp ñoo bokk fuñ jëm ñoo bokk fuñ jëm waaye may yëpp yamuñu nee na bu gaay ne ñëpp benn nañ nag ma ne ko wax ngeen dëgg ñëpp benn nañ waaye lépp dul benn waaye lépp dul benn. lay sëñ Bamba nee na lay sëñ Bamba kenn du moom la ko yàlla defal defalu ko kenn. nee na loolu kenn du ko benna bennaale kenn. ñëpp benn lañ ñëpp benn nañ. ci jubluwaay ci jubluwaay yi waaye may duñu benn. loolu la yàlla mu rafet lool. te mel nam daan mel. nee na invité na ñëpp nag ku dëkk Dakar rek te jàppandi rek ñu ngi lay woo. ci guddug yonent bi asalem Grand Médine ca kër ga incha allah incha allahu rabbi alxamis bii di ñëw danañu gàmm kayaar ngeeñeen ku dëkk Dakar fu waay ne foo mën a àndal ñëwal ñu màggal guddig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam complété xel kom ji finition ko lagan ji dëtmal màggal gi nee na ñu tàllal tey amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin nee na am na it lu mu fàtte woon de ñu baal ko remerciement yi soxna mbeenum Cheikh Mouhamadul Fadal nee na soxna mbeen bu Cheikh Mouhamadul Fadal mu sëñ Fallou dafay yónnee ay beñe yu bare baree bare beñe bi nag nee na beñe bi nag danaa leen ci jox ngeen barkeelu nee na dinañ ci ñu barkeelu ngir lan ngir ngir lan ngir lan tooli Serigne Saliou tooli Serigne Saliou bu fa sëñ Fallou yónnee beñe mat na mat na tooli Serigne Saliou nee na tooli Serigne Saliou. Serigne Fallou yónnee fa beñe. Serigne beñe. beñe boobu wóorut a a ñam. nee a de. beñe bi sax nee na beñe bi sax. kun fa yakun la kun fa yakun la. Oh. dañ ma indil beñe bi. nee na ñu indil ko beñe bi. da ñu teey nag. ba kenn ku ne. ba kenn ku ne. man cee mos man cee mos rek. nee bu ñaare ba noppi. Euh, tibbal ma ci benn tibb rek. nee na ñu tibbal ko ci benn bu sakkan a sakkan a sakkan ma téye ko. ñu indil ko ma ne ko jàkk. mu ne ko jàkk. Cheikh Fallou Cheikh Fallou. Serigne Saliou aajo kon nag beñe bi. sëriñ bi nee na kon nag beñe bi. dañ cee tib dañ cee sàkk rek indi. nee na dañ cee sàkk rek indi. beñe bu bari la. nee na beñe bu bari la. soxna Mbène Mbacke. nee na soxna Mbène Mbacke. moom Cheikh Mouhamadul Fadal. moom Cheikh Mouhamadul Fadal. moom sëriñ Touba. moom Serigne Touba. moo ma ko yónnee sànq. na moo ko yónnee sànq. nee na. nee na. moo ko barkeeloo. moo ko barkeeloo. ci ndigalal sëñ Fallou. ci ndigalal sëñ Fallou. Oh. te nee na dina ko defaat déwén. te nee na dina ko defaat déwén amin kon daa mel ni sëñ Fall ñëw na ci kon nee na daa mel ni sëñ Fall ñëw na ci jotaay bi. Mm-hmm. sëñ Fall ak nee na sëñ Fall ak Serigne Saliou. ndaw suukar ak lem ndaw suukar ak lem. Mm-hmm. saf rek. kon nag beñe bi. nee na kon nag beñe bi. ci barkeeb ki ko fi yónnee ci ko fi yónnee. yéen rek laa nee na ñun rek la ko yéene. ndax yéen lépp lu baax de. nee na ndax ñun lépp lu baax de. man yéen laa ko yéene ñun rek la ko yéene. nee na ndax ñun dey lu baax lu ne lu ne nee na ñun ñoo ko yeyoo woote na nga woote ñu wuy si la ci Serigne Saliou ci Serigne Saliou yéen rek a baax nee na ñun rek a baax yéen lu ne nee na sëriñ bi nee na ñun ñoo yelloo lu ne moo tax nee na moo tax aka ma leen ko yéene nee na aka mu ko ñoo yéene bañ a baa ngi noonu nee na bañ baa ngi nii ma ñaanee ba bu ñaanee ba noppi ngeen dal rek ñu dal rek xam naa ni ki ko yore moom. nee na xam naa ni ki ko yore ko ak beñ bi tam <laughs> kon nag. nee kon nag. loolu mooy tawféex ji loolu mooy tawféex ji. tàllal leen nee na ñu tàllal bismillah. day wax amin amin amin amin ya rabbal alamin